Luk saar fukk am bés yeesu di ñaan ci benn barab. bi mu noppee kenn ci taalibeem yi né ko. borom bi jàngal nu nan lanu war a ñaane ni ko yaxe jàngale ay taalibeem. yeesu ne leen. bu ngeen dee ñaan na ngeen ne. baay bi na sa tur sell na sa nguur ñëw. may na bus bu nekk li nu war a dunde baal nu sunuy bàkkaar ndaxte nun itam dañuy baal ñépp ñi ñu tooñ te bu nu teg ci yoonu nattu yéesu teg ca ne leen mi ngi mel ni nga dem seeti sa xarit ci xaaju guddi ne ko xarit lebal ma ñetti mburu dafa am sama xarit bu ma ganesi te awma dara lu ma ko jox waaye kooku nekk ci biir néegam dina ko tontu bu ma lakkal tëj naa bunt bi ba noppi te tëdd man ak sama njaboot mënuma jóg di la jox dara maa ngi leen koy wax su jógul jox ko li muy laaj ndax li ñu xaritoo it ndax la kee ñàkk jom dina tax mu jox ko lépp li mu soxla moo tax man ni ñaan leen ñu may leen seet leen te dingeen gis fëgg leen ñu ubbil leen ndaxte képp kuy ñaan dinga am kuy seet dinga gis kuy fëgg ñu ubbil la bu la sa doom ñaanee jën yow miy baayam ndax dinga ko bañ a jox jën jox ko jaan walla mu ñaan la nen nga jox ko jiit ndegam yéen ñi bon yéen a mën a jox seeni gune lu baax astemaak baay bi nekk ci kaw dina jox xel mu sell mi ñi ko koy ñaan am bés yeesu dàq rab wu luu naka la rab wa génn luu ba daldi wax ba mbooloo ma yéemu waaye am ca mbooloo ma ay nit ñu doon wax naan ci kàttanu belsebul buuru rab yi lay dàqe rab yi am ñeneen ñu fexe koo fiir ba laaj ko kéemaan gu jóge ci asamaan tey firndeel yonentam waaye yeesu xam seen xalaat ne leen réew mu xeex boppam tas kër gu xeex boppam gent te bu seytaane xeexee boppam naka la nguuram di mën a yàgge damay wax loolu ndaxte nee ngeen damay dàq rab jaalale ko ci kàttanu belsebul te bu fekkee ne man damay dàq ay rab ci kàttanu belsebul seeni taalibe nag ci gan kàttan lañu leen di dàqe kon ñoo leen di àtte waaye bu fekkee ne baaraamu yàlla laay dàqe kon nguuru yàlla agsi na ba ci yéen su nit ku bari doole gànnaayoo di wattu këram alalam dina raw waaye bu ko ko ëpp doole ñëwee daan ko dafay nangu gànnaay ya mu yaakaaroon ba noppi séddale alal ja ku farul ak man yaa ngi may xeex ku dajalewul ak man yaa ngi tasaare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 ba tax jug nit kooku mooy yées njaalbéenam bi yeesu di wax loolu jenn jigéen yëkkati baatam ci biir mbooloo ma ne cey jigéen ji la ëmb te nàmpal la moo barkeel waaye yeesu tontu ko ne neel kay ki barkeel mooy kiy déglu kàddu yàlla te di ko topp naka la mbooloo may gën a takku yéesu ne niti jamono ji dañoo bon ñu ngi laaj firnde waaye duñu jot genn firnde guddul firndeeg Yunus ndaxte ni Yunus nekke woon firnde ci waa dëkku Niniiv noonu la doomi nit kiy nekke firnde ci nit yi jamono jii keroog bés penc buur bu jigéen ba dëkkoon ca sud dina jógandoo ak nit yi jamono jii yey leen ndaxte dafa jóge ca cetul àddina ngir déglu xam-xamu suleymaan te ku sut suleymaan a ngi fi tey te bés penc waa dëkku Niniif dinañu jógandoo ak ni ci jamono jii yey leen ndaxte bi leen Yunus waaree tuub nañu seeni bàkkaar te ko sut Yunus a ngi fii kenn du taal làmp ba noppi di ko dugal ci kàmb walla di ci këpp leget daf koy wekk ngir mu leeral ñiy dugg bët mooy làmp yaram bu sa bët wëree kon sa yaram wépp leer waaye bu sa bët woppee kon sa yaram wépp lëndëm moytul ndax leer gi nekk ci yow du lëndëm kon bu sa yaram wépp nekkee ci leer gi te genn wet gu laal ci lëndëm dina leer nàññ mel ni leeraayu làmp ne ràyyi ci sa kaw bi yeesu waxee ba noppi benn pharisien wax ko mu ñëw lekke këram yeesu dugg ca kër ga toog ca lekkukaay ba pharisien bi nag daldi jaaxle bi mu gisee ne yéesu raxasuwul laata muy lekk noonu boroom bi ne ko waaw yéen pharisien yi yéen a ngi setal biti kaas bi ak ndab li waaye ci biir dangeen a fees ak càcc ak mbon yéen a ñàkk xel xanaa du ki defar biti moo defar biir itam saraxe li nekk ci biir te seen lépp dina sell yéen farisiyen yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi sàkk asaka ci naana ak ruu ak lejum bu nekk waaye sàggane ngeen njubte ak mbëggeel ci yàlla loolu ngeen war a def waxuma nag ngeen sàggane la ca des yéen farisiyen yi dingeen torox ndaxte ca jàngu ya toogu ya féete kanam ngeen di taamu te bëgg ñépp di leen nuyoo ñaari loxo ca pénc ma dingeen torox ndaxte dangeen a mel ni ay bàmmeel yu raaf ba nit ñi di ci dox te teyuñu ko kenn ci xutbakat yi ne ca tonn ne kilifa gi boo waxee loolu yaa nga nuy xas nu itam noonu yéesu neeti leen yéen itam xutbakat yi dingeen torox ndaxte dangeen di sëf nit ñi say yu diis waaye du ngeen nangoo laal sëf bi sax ak seen cati baaraam dingeen torox ndaxte yéen a ngi tabax xabru yonent yi seeni maam reyoon dangeen di seede noonu ne ànd ngeen ak li seen maam defoon ndaxte ñoo rey yonent yi yéen ngeen tabax xabru yi loolu tax yàlla mi xam lépp ne dinaa leen yónnee ay yonent ak ay ndaw ñenn ñi dina ñu leen fitnaal rey leen kon nag yàlla dina mbugal nit ci jamono ji ndax dereti yonent yi ñu tuur ba àddina sosoo ak léegi la dale ci abal ba ci sakariya moom mi ñu rey ci diggante saraxalukaay bi ak berab bu sell bi waaw maa ngi leen koy wax yàlla dina mbugal nit ci jamono ji ndax loolu yéen xutbakat yi dingeen torox ndaxte yéen a yóbbu caabi xam-xam dugg leen ci te ci bëgg a dugg ngeen tere ko ko bi yeesu génnee barab boobu farisiyen ya ak xutbakat ya ëmbal ko mer te di ko seetlu ci fànn gu nekk di ko yeeru bëgg këf waxam bu awul yoon